nga <laughs> ñaareel rek mu tiit. non lum kan nu mu tudd nu ah. su ma takkul ñaareel. waaw mais Aliou Niang kañ laa takk jabar ba takkaat ñaareel. ah, ah? mariage même pas deux ou trois mois. Mm. nga bëgg ma forcer <laughs> ñaareel. xanaa loo ma tudd demal nga toog bañ a bëri ñu waxu ñaareel nañ ko tegee à côté sama waay nga borom baax nga. waaw mais bu la joxaatoon revanche nga jël. kan ko tëggaatoon di ngeen jël ñaata yoon ngeen bëri deux fois. ah. bu ñettee di nga jël. Modou ko ni ñu ko tëggaat. moom dafa lëjal Moodu. ñaari yoon kiiw la. dëpp la kan lay dëpp. ñaar yoon daanu la laalu leen suuf yéen ñaar ñëpp. ah laalaguñ suuf ñun ñaar kenn de. te Modou Lo ku mu bëreel bu jëlee revanche di daan mbaa mu daan la. waaw mais yow daanu woo. Gris defe naa noonu la de ah ñaar ñëpp. dañu ko indi ah, daan na keroog courant de. courant de ko. ma dégg maa <laughs> man daanu ko nag. daan na courant courant nangu rek waaw. bu ñettee nga ah, loolu lay wër fu mu ne fu mu ne nii li Modou yor ci boppam bi de moo ma tee nelaw. waaw ah, ah. non man sama bopp laa xam. te waxoon nga ci kàttanu yàlla. bindal. da la ma la. Mm. bindal ci kàttanu yàlla. xanaa ñu ñàkk bañ a bëreeg man. Mm. wala gars yi def leen neex. Mm. ñu fexe bañ mu bëreek man. mais bés bu ñu bëri dinaa ko doon ci kàttanu yàlla lu leer laa la wax. incha allah bu neexee xanaa ma ñàkk ko bañ a bëri xanaa gars yi bañ ma bëri ko mais ma bëri ko rek ma wóor na ma tey roi yàlla laay bëri ci kàttanu yàlla dinaa ko jël incha allah bu neexee yàlla. Baye Sall bu Touba maa ngi lay nuyu bu baax a baax.